UNESCO de dans un programme régional Nous sommes programme depuis euh, un an nous avons développé un euh, document de stratégie acteurs euh, pour valider document pour pays li nga xamante ne moom lañ fi dundoon ci at yu passé bi nga xamante ne feebaru Covid ñëw na euh, ñu tëj école yi xale yi mënuñoo jàng euh, dañu appuyé woon ci volonté wu enseignants yi yu doon defar ay documents di ko offrir ministère bi euh, appuyé wu ci semaine service numérique bi appuyé wu ci imprimante appuyé wu ci Promet jéem a jàngal xale yi yi reste seen kër jéem a ubbiwaat école yi bañ ci génnee monsieur le ministre dafa ne woon. comme euh, lii ñëw ëllëg kenn xamu ko te école bi mën na am façon choc bu ne euh, moom dafa opté woon pour que ñu jéem a consolider li nga xam ne moo fi am gën ko dëgëral gën ko ñoŋal pour que at yi di ñëw bu ñu leneen songee ñu mën a résister ci loolu la ne woon nañu renforcer plateforme yi nga xamante ne moom la ñuy jàngee numérique renforcer ressources yi euh, déjà pays bi mu ngi ci woon di ci dox ay jéego tey nag li ci bees am ci solo mooy UNESCO dafa ñëw mobiliser expertise am indi accompagner une équipe de de du ministère niveau central comme déconcentré pour nous permettre ñu am benn stratégie bu nga xamante ne bien élaboré stratégie nationale boo nous dañuy permettre ñu xam exactement fan lañ bëgg a jëm fan lañ bëgg a jëmale programme pour que li fi nekkoon ñu mën ko dëgëral jafe-jafeñ bi ci ëpp

ku mu neex jëfandikoo ko te day gratuit pour xale yi day gratuit pour tout le monde euh, jar nañu xalaat ensemble naka lañ leen mën a dalalee seen xel ndax Sénégal dafa am politique manuelle bu nga xamante ne dafa am préférence nationale dafa wane woon ne ay doomi réewam lay jox marché pour ñu produire manuel yooyu boobu ba léegi ci lañu ci lañ nekkoon di ci dox bu ñu demee ba dem ci transition bu nga xamante jamono moo laaj parce que boo le système éducatif bu résilient il faut que ressources avec des ressources de qualité mais mu méngoog suñu culture euh, dans ce cas day donne bien jéego bu bees boo xamante ne jamono da koo laaj suñuy dox ci là. nag day jar ñu mën a waxtaanaat acteur, acteurs yooyu ñu xoolaat euh, naka lañ leen impliqué ci processus bi pour que phase bi nga xamante ne ci lañ jëm euh, accompagner transformation éducation bi ñu mën leen ci impliqué trouver ndoo ay solution pour que ñoom ñu bañ a gaañu mais aussi programme bi nga xam ne ci lañ jëm mën a doon programme bu amoon njëriñ suñu élèves yi